إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيت المنام asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gaawu fanweeri fan ak benn ceeru octobre ci atum 2015 bi 4 heures 45 minutes jotee Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul Hayaat bàyyi ko fii ci daaram ji fii ci Touba Taybatul Karim dëkkmal fi nga xamante ne moom mooy xelkom ànd ak mbokki taalibe yi ginnaaw bi nga xam ne mbokk taalibe yi bëri jiitu nañ ko fii ci liggéey bi nga xam ne Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacke joxoon na ko ci ndigal ak njabootam yépp ngir liggéeyu toolu xelkom bi mu agsee fii jiite mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi ci jullit fajar bi ñu sëlmalee nag ci la ñu dugg ci tool yi mottali liggéey bi nga xam ne mbokk taalibe yi bàyyi ko ci biir réew mi ñëwoon tàmbale nañ ko ci àjjuma fanweeri fan ci weeru octobre ci atum 2015 laka bi ya sayyidis naftiram jaadal lana baaxin taalan manaam bi kafanta sayyidi xayrul anaam nawaytu sukra alayka kullam wa kulla saarin والكتاب الاتنام نويت سكره عليك بالكلام وخير يا سل جوامع الكلام هديتي bi ñu ci xëyee kon ci gaaw gi fanweeri fan ak benn ci octobre ci atum 2015 balaa 7 heures di jot fekk na liggéey bi yëpp mat sëkk mbokku taalibe yi Cheikh Ahmadou Mbacke Mawoula xayaate ci seen kanam wane yitte ak Pastef ba ndigal yi bàyyi ko ci Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mbakke ñu matal ko ci gën ngaa rafetee ni anam ñu wane ci Pastef gu mat sëkk dëgg gu mat sëkk gannaaw ba ñu boolee jaamu yàlla ni nga xamante ne Serigne Mbacke noonu la ko ci ginnaaw Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul waaye tam boole ko ak liggéey bu wër ni ko maam Cheikh Ibrahima Fall doon defee ci ginnaaw Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha mbokk yi liggéey bi nag doon féddale rek goo xam ne waa kër Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul la yaata niñ ko defee woon daaw ren nag ñu defewaat ci lu kawe njortal jaam ñëpp ba tax na groupe Maawul xayaat communication àndoon ci ak yéen ci liggéey bi fas yéene leen a lépp loo xam ne bàyyi ko ne fii ci Xelkom ci gaawu fanweeri fan ak benn ci weeru octobre ci atum 2015. تغلم ابن وتكفي الآلية لأحمد المختار كتم كافيا افيا تدم ليست افيا درجة المختار درجة المختار درجة المختار ليست افيا إذ الحياة للهبات سافيا ودي لربي ولولي ازيا ألا انا نودي لسدد الناسية ناجيت فيني جمادة ثانية من المقرم المنيل الدانية ناجيت في الجمادة ثانية من المقرم المنيل الدانية آمين yaa rabbal aalamiina. yitte ji ak pasteef gi ak am yéene matala ndigal li bàyyi ko ci Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacke yàlla fi yàgg lool te ànd ak wër mel na ne fii la liggéey bi mate ci sas yu ñu joxoon waa kër Cheikh Ahmadou Mbacke ma wula xayaate fii ci xel xelkom daaru juñ naan daaru xuddos bi liggéey bi mate Serigne bi jokkoon ak Serigne Mouhamadou Lamine Diop mi nga xam ne moom mooy jëwriñu liggéey yi ngir xamal liggéey liggéey bi mat na sëkk bi ñu ci jokkee moom nag ci la Serigne Mouhamadou Lamine Diop joxe ndigal ngir ñu àgg nag ci fii mottaliwaat fi liggéey bi mbokki jullit di ak mbokki taalibe ci njiitalu Cheikh mbakke Mbacke Mawoul Hayaat kon nag ñu ngi jëm dëgmal ci weneen sas wi nga xam ne jox nañu ko fii ci Daaru Xuda ci xel Xelkom ngir ñu mottaliwaat liggéey boobu. الله خادم الرسول خادم الرسول دنيا دنيا وأخرى اسمة وخير رسول لا عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى اسمة وخير رسول لا عبد الله خادم الرسول دنيا واخرى عصمة وخير رسول امين يا رب العالمين بني نيو كون تي ساسوي مبوك طالبي سونغو كو تخاوو ني في دغ دوغوت جي في لا نيو ناك كوميسيون بيغا خامن نيو يرون والو كومونيكاسيون تي ليغي خيل بي تي ديغلو سيرين شيخ موم سيرين ساليو مباكي فكي نيو باي لين جوتاي بيغا خامن سيق نانكو اك شيخ احمدو مباكي ماول حيات كون بوكاي غيس نين بي نيو يكسي تي بارا بييب Eh, nii nga xam ne noonu lañu ñu dong yi eh, dare fii nga xam ne nii eh, fii la Serigne Modou mbake Mawul xayaat dal nga xam ne dañoo song di ñu laaj fan la liggéey bi desee fan la liggéey bi desee waaye nag bi ñu yegsee ci biir tool yi eh, noonu la ñu dajee ak sëñ bi mu mel ne ñoom dañoo matal fi nga xam ne nii mooy seenu sas ba ñëw fii ci daara ji kon sëñ bi gannaaw bu ñu la nuyoo ziar rek ñu eh, taataan ay kàddu eh, ci yëg-yëg bi nga xam ne nii am nga ko ci nii nga xam ne noonu la sëriñ Cheikh feddaliwaat liggéey bi sunu kóllëre ga nga xam ne moom moo doxoon ak sëriñ Saliou Mbacké tey nga ànd ak dong yi nekk fii ci biir tool yi bisimilah sëñ Mangi ngi sant yàlla sama borom bu baax cant gam fum fu way amut fum yam di santat Serigne saliw bu baax cant go xamni amna fum na way amut fu yam yem cant gi lot nañ ci ci sunu xel ak ci sunu xol ba ñoo wax dara di ñaanal Serigne Touba Serigne saliw yalla na yalla yokk ndax li kat mooy xet li jaam ñi tuur sunu ñaq ci yoonu yàlla te yalla rek tax ak jëmi sëriñ Touba kon yàlla nanu ko yalla fayal te yàlla yokk leeram jiwriñam jimi fi bàyyi di na yàlla fiq aw fanam ak njabootuk sëriñ Saliou gépp ba lépp loo xamante ni sëriñ bi yéene woon ko nu àggale ko ci gën gaa rafetee ne anam agale seen yéene tanu nu ko ak ci gën anam di sant mbooloo mii fi daje ndax rawatina waa Manaarul Huda alxemes lañu xëy si daanaka bi ñuy ñëw nun ci fajar di fi jullee si suba fekk nañ tool yi xaaj na ci sept heures laataa sept heures du jot fekk na fi ñu nekkoon jeex na tàkk moo sëñ Lamine Diop ne ko fu des mu ne mën a jàll ca kaw ñu doxe foofa dikki fii fii it mel na ni liggéey bi lépp mat na sëkk kon seen pëstéef ak taxawaay ak seenu takkute mënuma leen a fay ñoom ñu jógee Dakar jëwriñ yëpp ci njiital nag Cheikh Yaxya mi nga xam ne mooy jëwriñu bokki bi yëpp ndax kenn ku nekk ci nun jàpp nga ni liggéey bi yow yaa ko war a liggéey noppal nañ ma sagal nañ ma yàlla na nu sa borom boole dimbali boole nu taxawu boole nu sàmm te it boole nu aar ba suñu yéene ci liggéeyal sëñ Touba lépp nu bokk jëf ci lu kawe suñu jort te lii di njëggal ci nun di yërmaande ci nun di defaru mbir ba fawwu yàlla na nu ko sa borom bokk defal nun ñëpp di santaat Serigne Cheikh bu baax gannaaw ba ñu santee Serigne Saliou ak njabootu Serigne Saliou gépp di siyaare Cheikh Sidil Mokhtar di ñaan suñ borom fiq aw fanam te yokk ak wéram te yéen a jëm am ci liggéeyal Serigne Touba lépp nu bokk jëf ci lu kawe suñu njort di leen sant yéen ñi nga xamante ni yéen ñu fekk fii ban mën a jotli kàddu yi ci gën ngaa rafetee ne anam waaye njaboot gi moom sant naa leen cant goog am na fu mu tàmbali waaye amut fu ndax man na maa wax ni bañ tëbaskee ba léegi noppaluwu ndax ñiy topp seen wàllu doxalin ñëpp ñu ngi gis ne noppaluñ boobaak léegi ci tool yi Manarul Huda bi fii may waxee yow tool yi des na ndax liggéey bu yaatu waaye bi li taxawee nag dama leen wax ni fii man mooy samay tool dama dellu ci sama daara ndax fii ci ñu ko sanc laa bokk xel koom ca daara yu huit ba fa ñaari baraag nekkee ñu daan jóge njàppandal di dajale si foofu ba bi ñu sanc xel koom daaray treize quatre-vingt-treize booba ñoo nga jóge njàppandal dem foofa booba daara ja dara wuru ko foofa la ma sëriñ bi yewee na ma sa liggéey mat na waaye nag tax laxasaay gi moom benn yoon laa koy tekkee rek duñu yokki duñu tay na ci waaru liggéeyal sëñ tuba ci lislaam ba bañ koy fekke rek loolu dong mooy sunu xeminteef loolu dong mooy sunu bëgg-bëgg ci la ñuy dund ci la ñuy dee te moom la ñuy dénk taaliba yépp di ko dénk njaboot yëpp fu ndigal jóge nanu jóg bu leen bëgg aw tagg ni ma koy wax waxtu wu ne na yàlla rek tax nuy jëf bu nu ragal aw ŋàññi benn doomu aadama bu benn doomu lenn lu toll ni deedee yu amut nañu yër suñuy xol yi ba mu wóor ne bu ñu yëgee ni li ñuy def yàlla tax buñ ci amaat beneen bëgg-bëgg buñ ci amaat beneen yëg-yëg yàlla moom dara gëmmut nelawut tawfeexi sëriñ bi yaatu na yaatu goo xam ne fépp fu taalibe nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di jëf te sellal sëriñ bi fekk la fa loolu it nañ ko xam góor góor góorgóorlu ci njub góor góor li ci ragal yàlla nañu góorgóorlu ci maandu nañu góorgóorlu ci rafante rafetal bëggante soppante wóolante dimbalante jàppalante wattandiku tooñ jéggale ak tooñ ngir jëmm yàlla di jëllale it ak tooñ ngir jëmm yàlla te jiital sunu kërug ëllëg ci sunu kërug tey ndax kërug ëllëg mooy liy sax ba faw koo xamante nag kuñ teg ci jaan ngir rëccu koo mën a doon buñ la tegee ci jaan ngir rëccu ndax boo doon def lu baax da nga ko xeeb ab safaan moom taxu may wax kon nag nun ñëpp nanu takkuwaat xam ne liggéeyal sañ Tuubaa moom du fi jug ba adduna di tukki lépp luy jëmmal lislaam ci pas pass ci kaddu ci jëf ci melo fep fu bi mourid nek na ca sax njabootu seigne touba nak moy julit ñëpp fu julit defe lu baax ak foko mën di jëfé yaa ngi ci bin ngërëmal seigne touba loolu nañ koy bayyi xel bu bax kon no ngi sant seigne Cheikh Amar Sen Mor Sen seigne sëñ Saliou Niang yéen ñëpp noo ngi leen di sante seigne fallu seigne Cheikh sambu yep no ngi leen di sante te di leen gëreum di ñaan suñu borom suñu aajo suñu borom fiq suñu fan yok suñu yokk sunu sutura musal nu ci ay noon akum pexem képp ku ab safaan jëpp xalaat ko jëmale ci nun yal na ko yàlla toroxal fa mu nekk yal na ko yàlla teg loo xam ne du nu tal nun ci mbaaxu yàlla ay yërmande yi mag tawféexi sëriñ bi noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Cheikh suñu xol sedd na guyu sant naa ñëpp ñëpp ñi wuy si ñëpp sant naa leen te gërëm ñëpp na kenn desul tund Touba Mbarasaan Ndakaaru Kawlax Mbuur su ma limee damay juum waaye kenn desut fu taalibe bi nekk rek dagg nga sa yitte yëpp dikk tey it kenn ku nekk ci ñoom ñi am na ci ñoo xam ne tey lañ ma a gisu dugub aw aw gub dugub bu ñu dagg kenn ku ci nekk it la nga doon réer na la ngir la géel Sëñ Touba ay kilifa dong nga fi nekk ci anam goo mën di jël ci biir réew mi boo koy leen wax wuteeku waaye nag xooluñu loolu seetuñu ko yëruñu ko wëruñu loolu lay suñu yitte daal mooy bëgg sëriñ bi ak na fi yàgg yàlla na wér yàlla na mucc yàlla na mébétam àgg ci lislaam nuyut suñuy mébét àgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh لمالك يوافق خير السلام الحمد لله الذي قد منا بخير الذي تقبل من التلاوة الكتاب انزل نشكر على توجه الدرر إلى سوانا وكفنا من قدر هردا ونور وردا وبركة في سكر من بارتفاخ مدركة للمصطفى للمصطفى للمصطفى سكر نكيم يغني liggéey baa ngi nii kon ci sas yu ñu matal ñu delluwaat nag fi nga xamante ne foofu mooy sunu sas di daaru xuddoos bi 10 heures di jot fekk na lépp mat na ñaari sas yëpp matal nañ ko dagg dugub ji lépp ko Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul Xayaat kon war a santante ak mbokk julli di ak mbokki taalibe yi ñu ànd ak yéen dégtal leen jataay bi nga xam ne am na fii ci xel koom ci gaawu fanweeri fan ak benn ci weeru octobre ci atum 2015 ci njiitalu Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul Xayaat فاق البزر والجن والأملاك حس الفقر بركة الكتاب هبدا كوني قديمة من تهل نور كوني أني نفى القرآن أني نفى القرآن حمل كل ما لم يرده لي رسول راتي والسماء سنت مكاتبة سواء تدعت لله ولرسول وتنكدي يقول للباخي دواما ما أود إلى الجنان دون دون أو كبت سادني الباقي مسرة تدوم في سورة الأنفال حبس الكريم في سورة الأنفال حبس الكريم لله ما كتبت من جسس لله ما كتبت من جسس لله لله ما كتبته من جسس ولرسول لقتلي جسس هدية مني لربي السكر ولنبي قديما ساسكر مني لله ولرسولي ولسوي الإسلام والقبول من تكسس إلى دخول الجنة خطي بالحسن وخير في النار هنيت بالجزاء والأجور وبثواب أنس الدور في مات وبيع رابح ينهو إلي فائس أو صالح لأنقادة الأجور والمصالح بالتي والجذب والنسالح نقي تقي صالح وهو مسلم بصير لمن لله بلا قيس لأن قادت الأجور والمصالح بالتي والجذب وإن صالح ربي التجارة ملتجا لمن لخاتا جزا ووجا هدى ونور وردا وبركة في سجن من بارتفاع والنور لا إله إلا الله mbokki taalibe yi mbokki jullit yi sëriñ bi nee assalaamu asalaamualeykum wa rahmatullah na maa ngi sant yàlla sunu borom bu baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee wante amul fu mu yem ci tawféex yi nga xam ne defal nanu ko ak ndimbalam ak kaaraangeem neena mi ngi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan gëreemal suñu borom ak leeram yalla bu mu deñ mukk di dottiku ci ruuxu maulana sheikhina sheikh Ahmadul Khadim di sant it sunu sang ba maulana sheikh salih Mbàkke ta xamne lepp rek mom la ndax moom lañ ñu jébbaloon moo ko toqi moo ko teete moo ko teg ci yoon wa yal na yàlla sunu borom yokk leeram sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou mi taxawee ab jataayam yal na yàlla sunu borom guddal aw fanam wéral ay cëram te yokk ko kàttan ak tawféex ba yéeneem yépp ci islaam mu jëf ci jëf ju kawe njortal jaam ñépp te sunu borom mottali sunu yéene ñun itam di ziyaare ki fi toogal Serigne Touba di Cheikh Sidil Muxtaar te di ko ñaanalit yàlla fequ fanam wa wéram ba jëfam yépp ak naalam yépp sunu borom àggale ko ci jàmm di ko ñaanal njabootuk sëriñ Touba jépp ak njëri njabootuk sëriñ saalu gépp sëriñ bi nee na moo ngi sant ñépp ñi fi teew ak ñi amoon yéene teew ak ñi nga xam ne yónnee nañ seenu barkeelu ci bés bi nee na cant gi nag am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax yég na ne xol lañ doon jëfe ak ruu waaye jëfewuñ woon jëmm nee na xolam sedd na guy ndax fii dañ fee ñëwoon daaw nee na ren jii liggéey bi bi sept heures jot ci suba yegg na ban jàll ci geneen daara laata dix heures jot lépp noppi na bañ dajale ko loolu ndamal sunu borom la subhaanahu di taw feexam di ndimbalam it ci ñun kon nee na xolam sedd na guy nee na su limee dafay juum waaye mboole si biir réew mi fu fi nit jóge rek yëg naa ko nee na xam na ko gis na ko nee na gis na it seeni jëf kon nag Serigne tubaab mi nga xam ne moom lañ doon liggéeyal xéewal yi sunu borom yi mu ko defal sëriñ bi nee na yàlla bu ñu ci kenn ëppale nee na yàlla na yàlla fekk sunu fan te yokk sunu wér te yokk sunu mucc te yokk sunu sutura képp ku wéradi yàlla na ko yàlla faj képp ku amee jafeñ-jafeñ yàlla na ko yàlla teggi lépp lu waay di sàkku te bëgg caa jot yàlla na ko ko ci sunu borom jotale te mu ànd ak jàmm te jot ki te jotin wa it jàppandi bañ a am benn jafeñ-jafeñ yéene yépp yàlla mottali ko ci gën gaa rafetini anam te yokk ñëpp jàmm nee na it yàlla nañu sunu borom bi defal mujj gu rafet ndax mujj gu rafet day mooy lépp nee bepp non, yang lenyuci, nañu ci yalla musal ku xelam tok jëmele ben safan ci ñun wala ci njabot gi yalla nako yalla tek lo xamne ko yàlla teg borom <laughs> ah li sëriñ bi nee na li ngeen li li ngeen di def genn jëf gënu koo màgg. genn jëfit gënu koo rëy. ndax nee ni mu ko waxee woon ci woote bi. moom njabootuk sëriñ Saaliw la. mooy sunu ndey mooy mooy jigéen. di woy juram wu gor di léppam mom Serigne saliw kon nene neena li xolam sedd na ci dayop sedd waye nak ñu xamne ca kanam rek ca kanam rek ca kanam rek neena ni jant bi mel dal nonu la doxin wi mel nolu mom neena nak na ko ma maase xam buñu yalla maye ñu fekke ba dajewat fi lii ñu jëf ren asakay déwén lay doon ci mbaaxug yàlla ak yërmandeem ak ay tawaafeexam kon nag nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp itam gërëm loo xam ne ci xolam la ko tibbee jëm ci ci mbokk taalibe yëpp nee na kon nag njéggal yërmande ndimbal tawfeex defarug àdduna ak àllaaxira ba faw rekk defaru gu weesu yàq suñ borom saxal suñu ànd te rafetal ko te lépp di njariñal lislaam yàlla nañu ko sunu borom bokk defal liggéey bi nag sëriñ bi nee na dafa mel ne yéwén na ndax bi ñu jógee léegi ci tool yi mu toog fii nee na daa dem ba yàgg xelam dalatut ndax nee na teel gi daal daa ëpp mu yaakaar ne liggéey bi des na feneen foo xam ne suñuy gët gisagu ko moo tax mu yeggaat ca daara ja fekk fa jëwriñ jafa nekk muy sëriñ Mouhamadul Amine Diop ñoo ne moom ak mu ak sëriñ Mouhamadul Amine Diop ñoo nekk ndawoon ca njàppandal nee na moo taxoon mu demoon fa ngir laablu ndax liggéey bi daa des am déet nee na sëriñ Mouhamadul Amine Diop ne ko liggéey bi lépp mat na ndax neena mi ngi doon xalaat sax. jël suñu fi ndax am na waar wu dese woon ca kaw ca weneen wàll ga. waaye mu wax ko ne yàlla dogal na am na ñu dugg foofa ngir matal waar ba. kon nag liggéey bi daa mel ne mat na. ndax fii nu fii ñu ko féetale woon ak njabootam. nee na secteur fekk na lépp yewen na. bañ jàllaat ca geneen daar ngir jàppale leen. loole it mat na waaye nag nee na gannaaw ndigal moo ko fi indi woon nee na nañu toog ñun ñépp bokk dégloo ba ñu yeewiñu loolu nag nee na cantam ak yéen mbokk taalibe yi nee na moom rek la leen doon jottali nee na sant na dëkkandoo yépp ak bokk taalibe yi yépp nee na su ne dëkkandoo nag Touba Mbarasaan ak dëkk yu ko wër yépp gis na leen Mbay Fall ak la wër ndakaaru yëpp bi nee na gis na leen daaru raxmatika ak la ko wër bi nee na gis na leen Touba Taybatul Karim ak ña ko wër ñëpp sëriñ bi nee na gis na leen nga door a jël nag yeneen dëkk yi ci des kon nag nee na kenn wutewul sant na ñëpp gërëm na ñëpp xolam nak neena da fess tay tey ba munta wax kon nak mi ngi santati ne cant gi mom kanam dong la jëm kanam rek at mu jotati sunu cant ca at mooma dana gatchal cant goko wess won neena lolu nak yaakar neene yag nako wax ay atangi ni mu diko wax kanam dong la jëm lolu mo waxon ca magal ga ku mënul cib jant doo mën ci jëmm ji lenn lu yàlla lenn lu ku mënul cib jant dara daal doo mën ci jëmm ji lenn tawfeex rek ndimbal rek ci lu nëbbu ak ci lu feeñ asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yàlla nga fi yàgg mbàkke te ànd ak wér yàlla nga fi yàgg te ànd ak wér yàlla na yàlla saxal njaboot gi yépp ci sa ginnaaw yàlla nañu sax di naan leeru sunu borom ci sa jëmm yàlla nañu sax di naan leeru sunu borom subhaanahu wa ci sa jëmm yàlla nañu sunu borom saxal ci ñuy leer ñuy naan leeru sunu borom subhaanahu wa taala ci sa jëm yàlla na yàlla dox sunu digganteeg seytaane ba faw ak képp ku méngook moom ak lépp lu méngoog moom suñuy noon nag moom nañu tax bu bu lu mu leen jaral ngir dox suñu digganteeg yàlla ñun pare nañ ngir jox leen suñu bakkan yàlla rek yàlla rek tey yàlla démb yàlla ëllëg yàlla ba keroog ñuy dugg ci biir bàmmeel lu mu leen jaral rek jaral nañu lu ko yàlla rek jërëjëf Mbacke yàlla nga fi yàgg te ànd ak nga fi yàgg Mbacke te ànd ak nga fi yàgg te ànd ak wér ngir jàmm ñëpp mën a xeetiliku bi barakati borom Touba ci biir jataay bi ci la magam di xalifaam di sëriñ Mouhamadou Fadal Mbacke moom sëriñ Amdi Moustapha al Karim toog jataayu sëriñ Modou Ajara Mbacke waaye itam toog jataayu sëriñ Amdi Moustapha al Karim ak kon ñu déglu kàddu yi nga xam ne mi ngi tukkee ci Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke jëmee ko ci njaboot gi waaye itam jëmee ko ci Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul Hayaat sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah nee na ñu ngi nuyu mbokk taalibe yépp di ci jital serigne Mouhamadou Mbacke mawul khayat nee su ngeen gisee mu teew fii nee na bu ngeen gisee mu tew fi wax deug yalla jëmmam ji moo tax jëmmam ji moo tax ndax mom nee na gëj na xel kom jamonoy serigne amdou mustapha Al Karim da daan def bu xel kom massa jot su ko fi fekkee mu def ay ndab moom sëriñ Serigne Amdi boole ko ki ñuy wax sëriñ fàllu Fallou Gadiaga ñu indi ko fii ci xel xelkom nee na boobaak léegi si nag moo ngi doog a ñëwaat xel kenn ku kenn ku nekk yàlla ak diw moom tool nee fii moom ay tooli Serigne Touba la. toolu Serigne Saliou la toolu Serigne Cheikh la ji moo fi endinak. ko fi indi nag. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. ndax su dul woon moom. du départ njaarim di ñëw fii. nit ki nag lépp lu ko tax jóg lu nekk nag. da koy gis ci jëmm ji. moo mu ñëw fii. nee kon ñun mbokk taalibe yi. maa leen gën a dolli sëriñ Mouhamadou Fadel Mbacke nee na moo ñuy gën a dolli di ñu gën yokk ñu gën a gën a yokk suñu pasteef te gën a góorgóorlu képp ku lay woo ndax képp ku lay woo. di la jëme ci sunu borom. te nga jëm ca. te nga nekkoon ca leneen. mu génne la ca mu génne la ca. yóbbu la ci leneen yóbbu la ci leneen. amook payam amook payam. loolu dëgg de. leneen lu la waay di wax lu la waay di wax. loolu amul solo loolu yàlla rek a a fi ne. ki yóbbu nag ci suñu borom ki la yóbbu nag ci suñu borom. ne la jaamul yàlla la jaamul yàlla. defal lu baax defal lu baax. bàyyi lu bon bàyyi lu bon. nee na kooku amoo ak payam. kon nag kon nag nee na nañu ko jàpp bu wér. te fonk ko te fonk ko. te xam ne képp ku ndax yu bari. te xam ne. damaa seetlu ci waa këram moom nee na dafa seetlu ci ay taalibeem yu bari ay waa këram yu bari. xam naa xëy na ñoom nee na xëy na yàggul ak ñoom waaye nag gis naa nañ waaye nee na gis na nañu ta na taalibe yi meloon njëkk ñuy tàbbi ci ay loxoom gis na mel gis na it ni ñu mel léegi ginnaaw bi ñu tàbbee ci ay loxom kon nag nee na loolu moom gis na ci ak coppiku gu wér. moom nag Serigne Mouhamadou Fadal Mbacke moom Serigne Amdi Moustapha Al Karim nee na xëy na ay waxam bëriwul. du wax it lu ko leerut. du wax nit ki mukk lu dul dëgg. te tamit te moom nee na yàgg naa dox. gis naa lu bari. gis na lu bari. mu sëbër daa bëriwul. kon nag li nee na li muur ay batam bëriwul. muy ci wàllu àddina ci wàllu àddina. bu dee alal la. muur muurul ay bëtam. bu dee ay dëkk yu rafet la. dee ay dëkk yu rafet la. nee na muurul ay bëtam. bu fekkee ay kilifa la bu nee na ñàkk na kilifa. nekkoon naa ak kilifa. nee na nekkoon na ak kilifa. ak ay kilifa ak ay kilifa. kon nag kon nag kon li muy wax nee na xam na ko bu wér. am na fu mu ko teg bu wér. nee na nañu gën a yokk góorgóorlu. yokk booloo. di yéenante jàmm. rafetal suñuy xool xam ne kenn ku nekk. li nga am. ak li nga man yàllaa la ko jox de. joxoo ko sa bopp. kenn ku ne sa bopp. ku doon may sa bopp. doo jeexal nee na doo jeexal mukk. nee na nit nag li am solo ci moom. moo di xol moo di xol. ab xol su rafetee ab xol nga yéene ñëpp jàmm. suñu borom dimbale la suñu borom dimbale la. nit nit. day yéene nit. la mu yor xam ne yàlla moo xam ne yàlla moo ko ko jox ah man de foofu la nekk moom day nee na foofu la nekk moom Mbacke Balla leneen lu waay am yéene naa la nee na yéene na ko ko lépp lu mu am billaahi nee na lépp lu mu am bu doon xot bu doon benn sagaru bu doon benn sagar la sagaru basang Seexul Xadim xam na ne nee na Seexul Xadim xam na ne doyloo naa loolu doyloo na loolu moom Mbacke Mbacke Sëñ Touba kon nag kon nag jërë ngeen jëf yàlla nañ fi teewe déwén yu bare bari suñu borom defal ñu xewal ak barke ci barke Seexul Xadim jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke dëgg la de defar na suñuy xol de bàkkuwuñ de Mbacke waaye wax dëgg yàlla defar na suñuy xol xol nag sori na lool waaye wér nañu ne moom defar na ko ndax lu baree bare dañ na si ñun rëy ku ko dindi ci yow rëy dong benn tomb rëy dong ku ko dindi ci yow dëgg yàlla sëñ bi ni nga ko waxee ko kenn amul fayam mu dindi ci yow rëy gisatoo sa bopp dind ci yow ngistal looy jëf te yàlla rek a tax dind ci yow mer dind ci yaw iñaan lu waaye am nga yéene ko ko ba jàpp yaa ko moom sëriñ du ay tawat yu ndaw de du ay paludisme ak ay choléra de du ay sida de tawat yu yu yu, ay ah mbake defar nga nu de billahi la ilaha illa huwa defar nga nu mbake defar doomu alama yombul de dind nga su ñun rasailal alb yi ne si xol tawat yi ne si xol yep ba nga xamne kenn ko ne meuna ñoo jaxaso ak yow lolu mbake sa jëf la du jëfi keneen faw ñu la koy santé di la ko gërëmi te di la ñaanal nga yàgg fi loolu tànn góor sëñ Fallou sa rakk ji de wax dëgg yàlla sant nañ ko gërëm nañ ko waaw sunu xarit la sunu sëriñ la waaye damay wax ne sax sunu xarit la ndax xarit mooy koo xam ne mënoo tàqale ko ak moom mukk gis gi ñu koy gis daf ñuy bégloo daf ñuy dolli ci yàlla dégg gi ñuy dégg ay kàddoom daf ñuy bégloo daf ñuy dolli ci yàlla te ku nite la tamit Mbàkke Balla ku nitee ngi nii koo xam ne ah ku ko jàpp rek xam ne jàpp nga ku nite ku am savoir vivre ngi nii moom nag dañ na ci tagg wala ci ŋàññ tagguñu ko ŋàññuñu ko dañuy seede ci sa kanam rek ku am savoir vivre mm. ku xam situation ku xam àdduna mm. koo xam ne ku ko am muy sa kilifa nga doyloo ko te di ko déglu mm. doo def mukk luñ naan lii war koon def dina la teg ci yoon ci àdduna woo xam ne loo def dañu naan lii jëfi kilifa la dina la waajal ci sa ëllëg dina la def ngay kilifa donte say at bariwul yàlla mi ma tiim xam ne ne demande yi ñu doon def ca manarul xudaa carte d'identité yu bari da doon jaar sama loxo mais amna date de naissance yo xamne suma ko xolé dama nan dedet li meunta nek ndax at yi nga daan jox ñooñu ci sel ak ci jëf ak ci kilifteef bo gisee at yi ñu judd ci zaire da ngay xamne mbacke Balla defar na len kon mbacke yalla fi yag tam de góor yalla na fi yag tam de te yalla nañu yalla suñu borom dimbalé ci mbaxam ak ci yermandem ak bëgg giñ ko bëgg mu saxal suñu and bëgg nañu sax ci sa jëm de mbacke lol sax bëgg nañ ci sax lol mbacke ñuy ñaan nga ñoo ñaanal taalibe yëpp yàlla dimbale ñu saxal ñu ci lu baax waaye tamit yàlla dimbale ñu may ñu koom alhamdulilah may ñu koom goo xam ne dañ koy liggéeylee suñu borom te jaarale ko ci moom ndax moom yéeneem ni mu ko waxee sànq bi ñuy ñëw ñoo ngi ciy waxtaan ak maître maître Seck di wax ne Afrique li ñu xaw a tardeel mooy ñàkk vision mm. waaye Mbàkke vision boobu la indiwaat ndax sëñ Saali bi mi sanc lii xëy na ñu bëri mënoon nañu waa sëriñ bi lan lay doy àll bu toll nii waaye tey ñëpp gis nañ njëriñam jëmm ji ñu àndal tamit lu muy def lu ne buñ ne laa lii fondation bi nangam bi ci million dalay jaaxal da nga naan waaw lii moom lu mu mën a nekk fekk ne moom ma ngay xool fii ak 100 ans fii ak 200 ans te tool yii sëriñ Saaliwu am wér na ma ci biir xolam ne moom bëgg na ay tool yu ko ëpp wér na ma ci yàlla ne ku ko jox suuf si toll noonu moom pare na ngir bay ko kii fiit kese la barki borom Touba <laughs> ñun ci suñu wàllu bopp ñun ñu ànd ak moom jiitoo nañu ay année lumière année lumière une année lumière égale xaw ma fàtte naa ko gis naa ko jàngale mille et quelques années li muy daw sax un xaw ma ñaata euh, ay milliards années li muy daw sax ñun dañoo topp ci ginnaawam nii rek mais attanuñ ko fit kese la day dugg ci ay projet yoo xam ne ay projet ay millions yu dul jeex la te ba mu cay dugg yàlla mi mi ma tiim xam ne ne dërëm denc ko te nak yàlla da ko ciy fekk ak dimbalam ak tawfiq ñun nak koku lañ soxla ngir ànd ak mom ku amul fit bi boo nga dem togi ku fi am loy yox yoxi wala loy tit wala koy ragal do mën ànd ak kii fit kessa la jom kessa la fulla kessa la ragalul kudul yàlla kudul yàlla bàyyiwu la xel ñun ñi tamit kudul yàlla buñu ko bàyyi xel yàlla sunu borom kessé kessé kessé mo fi nek yàlla rek rek rek moo fi nekk gis nga ku dox sa digganteeg yàlla bu ñu yeew say ñaari tànk di la yor ci biir bàmmeel jëmm jooje ci leneen lay nekk lu may ñëw di la wallu si ki la teg ci yoonu yàlla ngay ñàkk fulla di ñàkk fayda ba ñeneen jën la ci yoonu yàlla dugal la ci ay caaxaan mhm. ci àdduna bu ñuy takk say ñaari tànk rek di nga xam ne àndoon ak yàlla gën a wër de nañu am fulla nañu am fit fii diplôme du fi jaay fii benn diplôme du fi jaay fii daraja du fi jaay fii post du fi jaay fii statut du fi jaay xam nga fii lan moo fi jaay ak taalibe képp tak suñuy laxasaay di liggéeyal jëmm ji leneen lu ñu fi am pertement lay doon fi lañ koy wàcc soxna yeeg kër yeeg diplôme yeeg poste yeeg nomination yeeg yëpp fi lañ koy bàyyi nañu doon ay taalibe tak suñu laxasaay ngir liggéeyal jëmm ji ba keroog suñu ruu di tàqalikoog suñu هدان ونور وردان ويسر أنيل تامي من أداء البرو تابع لي من لدي أسلت عن العيوب كان فسافا أسلت آمين يا رب العالمين الله الله الله جل هدن الله جل هدن وهو الثمن ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفوا أحد كفوا أحد وسرمدا بالملك بالملك والحمد انفرد أشهد أنه إله الواحد وأن أحمد رسول الهابد شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق رسول الحق وما أرسلناك إلا كافة للناس بصيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد صدق الله رسله رؤية بالحق رؤية بالحق لا تدخلن مسجد الحرام إن شاء الله آمنين مقلقين رؤوسهم ومخاسرين لا تخافوا جاي سرين سالي بن الرجل لا تخافوا تحلم ما لم تحلموا فجهل من دون سالك فرقا قريبا هو الذي أرسل رسله بالقدى ودين الحق ودين الحق ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سوى يده ودين الحق ديني كتاب المصطفى لا خير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 ñun nag li ñu war mooy takkaat suñuy ndigg te dëggu li ñu war mooy takkaat suñuy ndigg te lii ñu gis fii ku mën a fexe ba am lii defal ay ndaw yuy yëg yàlla ku ko mën defal daa am loo xam ne nag xolub kiñaan ak ay pexe da ko mënta fang ñun sëñ bi du suñu baay sant ñu mbàkke liñ fiy wër buñ ko gisoon suñu kër baay sëñ bi duñu gis ñu fi gis feeñ ko fiy gis kenn mënuñu fee jële kuy fexe yow yaay dee ak say pexe mais kenn mënuñoo tàqali ko jëm ci du am loolu nag ku fi teew na ko yëg ku fi teewul na ko jot ñun dañuy dem te dañuy yegg ku dox suñu digganteeg yegg ñu faagaagal la jaar sa kaw jàll loolu mooy li wér sëñ Bas waxoon na ko maa ngi koy feddali te fii la gën a wéree maa ko wax li ma wax lu wér la ñun ñëwuñu di xidma kese de dañuy jaamu yàlla fajar dañuy julli julli tisbaar di tudd suñ borom subxanahu wa di ko sellal boole koog di xidma fu ah, ku ko gis faneen dem fa. li nekk fii ku ko gis faneen dem fa xel kom yaatu na xel kom yaatu na ku ko gis faneen dem fa ndaw yu yëg yàlla ñii ngis taluñ ñun weesu nañ fu ñuy ngis tale loolu mooy li wér kuñ ragal nag amul ci kaw suuf nit ku ñuy ragal ñun li liñ amoon ci lu war a ragal ragal nañ ko yàlla dara desu ci ak ko mën a doon noo mën a tudd noo mën a sant yàlla rek lañuy bàyyi xel kooku mooy lu wér na ko ñëpp xam ñu ngi tuubaat bu baax di jégluwaat bu baax waaye loolu lu war a leer la te kaw la jëm ku ko déggul woon di ko dégg ku ko xamul woon di ko xam kaddu yi nag lu waay di wax xam nañ ko waaye ñun ñoo féetewoo jëf te ku ami bët di nga gis suñ jëf ku ami nopp di nga dégg suñuy nopp képp ku bañ a gis suñ jëf te muy jëf ju sell ju tegu ci sunna bàyyi boo nga xar suuf si dugg ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xayrul jami mbokk julli di mbokki taalibe yi liggéey baa ngi nii ànd ak yitte ak yéene ak Pastef mel ne li ñu fi def uh, ren kon gàcceel na suñu liggéeyu liggéeyub uh, daaw ba ndax uh, ren day wax naa leen ko léegi balaa 8 heures di jot fekk na liggéey bi yépp feete boor ba 10 heures kon fekk nañu ci biir bâche bi sëriñ bi santante ak mbokk julli di santante ak mbokki taalibe yi mu doon jotaay boo xam ne kenn ku ci nekk rek delluwaan na ci ci suñu borom subhaanahu wa taala bu baax a baax gën a yeesalaat yitteem bu baax a baax ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ci giirub dundam te lépp nag ñu teg ko ci dëgg-dëgg njàngaleem sëriñ Tuubaa mooy boole jaamu yàlla boole itam liggéey te lépp itam ñu sàllal ko ànd kook Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul Xayaat yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér الملايدة الكرام ولي تكون أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل مليك كان مناسعا وأحزاح مليك ما توجه النسار الله لي بلا إله إلا الله ما توجه النسار الله يا بلا إله إلا الله mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki seetaankat yi bi ñu bàyyee ko kon xelkom ñu ngi fii ci kër Mbay Fall ci clinique Maawul Xayaat fi nga xam ne Maawul Xayaat santé ni mu koy defee at mu jot bu ñu dëgmalee màggale ko Touba ñu waajal nag bés boo xam ne ci la ñu joxe hadiyeey direct ndax xam ngeen màggale ko Touba dinañ koy teewoo lool ba tax na hôpital Matlaboul Fawzeyni ci Touba at mu jot mu ñëw fii ci kër Mbay Fall sàkku ci mbokku taalibe yi ñu joxe seen direct ngir ñu mën ko waajale màggale ko Touba kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki seetaankat yi bi ñu ñëwee fii ci cliniquement wul xayaat ci don de sang bi ci dibeer euh, ñetti novembre ci 2015 amna mbokk ñu fi fekk ñu don maye sen di ñu len yi nga xamne jele nañ ko ci ñom xol ak ci ci jëf ju ndax da koy faral di wax ni. yàlla ma waxoon Moussa ni ko alayhi salaam euh, tawat naa seet si woo yu bari la ko wax waaye boobu bokk na ci mu ni ko nan laa lay seet see yow rabbul izzati wal jabarut mu ni ko sa mbokk tawat na boo ko seeti woon mën nga seet si euh, defe naa acte bii nag ñu bari ñu ngi wàcc liggéey ci réew mi fekk na deret ju manqué moo leen ko xañ deret ji yàlla moo ñu ko jox ñu mën cee sàkk jox ci suñ mbokkum jullit wala mbokkum doomu aadama rek mu sauvé ko te du ñu wàññi dara loolu defe naa acte bu rëy la euh, ñu ci sant tamit sëñ bi ndaxte amaana bu dul woon li ñu nekk ci keppaaram yu mel nii duñ ci xóot ndax bari nañ suñ morom yoo xamante ni xëy na demeewuñ ci noonu waaye moom biñ ànd moom daanaka at mu ne mu def lu mel nii te moom ci boppam day maye te defe naa sarax la boo xamante ne sarax gënu koo kawe ndax sarax bi jot bakkan la moo tax daal mbégte lañ ci am ak sant suñu borom subxanahu wa taala di gën a ñaanaat suñu borom fekke lañu ko ba saa su nañu koy mën di def. sëriñ bi ko organiser tamit euh, faaw ñu sant ko bu baax ndax xam nga euh, lii mooy développement daal euh, nit ki jiital intérêt général ci intérêt personnel te boo xoolee initiative am yëpp ci loolu la jëm ndax bu dee yow yaa ngi ubbi ay école ña fay jànge bu doon sa njabootu bopp rek fu jàngé tëw la waaye nga ubbi ay daara ngir yar ay ndaw yoo xamante ni léeg-léeg doo xam sax seen waajur daara bari nañ fa ñoo xamante ni ñi ngi fay jàng alxuraan mën nañoo dem ba mokkale fa te seen waajur sax sëñ bi xamu ko te amul lenn lu ñuy warloo ci xale ya fa nekk lépp mu leen di kii loolu defena social la lii benn acte la rek ci benn euh, euh, démarche globale bu mu am yi muy def tam di laaye biir nit ñi ci diine ak xam-xam bu leen di jariñ ci àdduna day dugg foofu ndaw ñi muy yar di leen teg ci yoon di leen jële ci ay eh, caaxaan tegal leen ci dëgg tamit day dugg rek ci foofu ndax ndimbal seeni waajur te waajur yu bari ñu ngi koy témoigner eh, act bi nag eh, moom jëmmi yaram lay dimbali ku am tawati yaram ba bañ ñàkk yaakaar ci moom ñu jël sa deret moroom dolli la ko ngir yaram wa kii waaye gis nga dimbali yaram dimbali roo moo ko gën a màgg waaye nag jëf ju mat moom day boole ñaar yëpp da ngay dimbali roo gi dimbali yaram waaye nit yaram tawate ba soxlawoo lii soxlawoo ku ko dolli te moroomu moo doomu aadamam moo koy dolli noonu la ruux di tawate tamit ba soxla ku ko dolli te dolleen la ci moroomu doomu aadamaam lay jóge loolu nag sëñ bi lim ciy def moo duñ ko màndaxee sax lii daa toll nag jëfi ruu du siiw jëfi yaram mooy gën a siiw ndax yaram lañuy gis ruu daa nekk lu nëbb waaye lam jëf ci ruu moo gën a kawe lii moo tax ñu ngi koy ñaanalaat suñu borom gën ko yàggal gën ko dëgëral gën ko kartanal ba initiative yi muy def muy doom yum ji te mu ngi sax ba ñëpp a ngi koy gis waaye yàlla na màgg law ba daj aljina bi jep ba ku nek tek ci sebet te lolu am nañ ci rafet ñoon ndax lu baax mom ku ko sof rek yalla nga andal te yalla ko and ak mom di nga yegg waaw ndax yalla mom lu ne fi jog bam dess mom lu ne ñak carton bam dess mom kon ku sa carton joge ci ak sun borom subhanahu wa taala am nga carton do doo ko ñàkk dootoo ko ñak mok kep ku jog jëm ci mom tamé te muy dëgg moom ci bopam mo lay gatandu te kum gatandu fam jëm la la jëme kon ñun am nañ ci dalu xel xam ne seen ay sémbam incha allah rabbi dina yegg li ñuy ñaan kay mooy yàlla ñu suñu borom dimbali bañ bokk ci ñi ànd ak moom yeggale foog moom ndax lii moom kenn mënu ko sikk jàngale alquran yar nit ci diine di bay di dunde la cay des nga ciy tabax ay jàkk ay juma di am ay projet yi fu ñuy faje nit ñi di xiir nit ñi ci ñuy dimbali seen doomu ci seen alal ba ci seen deret lolu defena kuko ku yow defena naa ci yow la nek waye nak ñi ci nek man lay waxal ni ku set lu bax ba na ci waruto gestu waruto deng-deng da nga ci and ak way ndax lolu mo ci dimbalee jamono lañ nek jo xamanteni di nga yor sa junni ku yorul tous di la ko bonal ba nga sànni ko ndax bëgg na ko yam ak mom rek ñakam googu li gëna cher dal boko téé da koy téye am ci fulla ba kenn du ko bàyyiloo loolu moom moom laa am lu may wax ndax ay jeune rek fi ne ay ndaw yoo xamante ne diine moo leen ñor moo leen boo leen gisee sax danga yaakaar ne ay mag lañ ndax nuñ fonke seen boppam nuñ sàmmoo loolu ko ko gis daal te bëgg lu baax di nga ko rafetlu te di nga leen ñaanal moo tax yàlla na suñu borom gën a dëgëral taxawaay yi yéen tamit gën a saxal ànd beeg Cheikh Ahmadou Mbacké maa waxeyaat may ko wér yokk wërsëgam ba fi ñu jëm daal ñu àgg fa euh, ci gën gee rafet anam. don de bi dafa am njëriñ non seulement kuy maye ak ku ñu may ñoom ñëpp avantage la bu ñu foog foog na rek yow yow muy yow ku ñu may rek moo ci am avantage déedéet ñëpp ñaar ñëpp soo mayee sa wër yaram da ci nekk ndaxte ñëpp xam nañu deret buy daw suñu yaram dafa mel ne nu ma ko mën a méngaloo rek mooy huile moteur xam nga sa oto soo koy dawal su yàggee huile bi fa nekk dafay dem ba dee. il boobu da une soxla ko pour benen huile bu bess nga defaat ko pour moteur bu y a yaram aussi non la mel euh, sans su ci yaram bi na euh, xam lay jafé Ils euh, rapidement bu bess moy ñëwaat bess nga Ils yow avantage ba pare te deret deret boobu nga mu jëlee si yow nga jox ko beneen doomu aadama boo xam ne xëy nga sauvé nga am dundam nekkoon na si tolof tolof ba xam ne soo ci deful dara mun na yàlla rek a xam waaye mun na am ay jafe-jafe yow nga ñëw si deret jox ko ko yaakaar naa loolu amul lu ko gën a kawe moom moo tax don de sang waruñu ko ragal a def ñëpp nañuy ñëw maye don de ndax jaamu yàlla la sëñ wax na ko ba ba tàyyi chaque jour ñu wax ñu maye deret amul lenn lu ko gën a kawe ndaxte maye deret yax moom rek nañu mën a def pour sauver ay nit dañu hôpital dañu fay dem surtout maternité fu ñu amee ay ay doom dañu am ñoo xam ne ñi ngi fa waaye ñu leer def nañu lépp diagnostic yëpp war nañ ko def waaye tant amul sang transfusé wuñ ko du mën a faju te sang bi mënuñu dem jëndi ko feneen nit yi ñëpp ñoo ko mën a may ñoo bon donc nit yi war nañ mën a ñëw vraiment dimbale seen moroomu jaam comme sëñ bi nu ñu def nii yaakaar naa ne. fekkoon ñëpp nii lañu def si comme sëñ bi nu muy def nii sans du manqué Sénégal te xam naa yaakaar naa sauvé benn bakkan kese mel na ne sauvé nga àdduna bi yëpp nga sauvé lu mat téeméeri bakkan loolu moom taw feex bu rëy rëy rëy la moo tax may naan ñaan nit ñi ñuy faral di ñëw di maye sang su ñëwee si hôpital bu ñu mën dem am na banque de sang boobu mën nañ ko mun a maye sang parce que nekkul ne da ñëw rek. ñu ne la mayel sang déedéet da ngay ñëw ñu xool la consulter la ba nga xam ne yow mii kat mën ngaa maye sang sang nga am benn problème benn jafe-jafe su ko defee nga dog a maye waaye nekkul ne da ngay ñëw rek ñu ne demal maye ji ndax nit aussi sooy sauver waroo sauver ba pare am problème moo tax dañuy bëgg nga nekk apte mooy koo xam ne sa yaram bi yëpp duñ ci jëlee sang bi du am benn jafe-jafe nga xam ne yow di nga am sa wërgu yaram te sang bi nga joxe également dina mën a jëm foo xam ne foofu la ñu bëggoon moom moo tax wax di yàlla maa ngi ñaan ñëpp. Hmm, ñu faral di maye sang ku comprendre lu ñu maye sang soo ñëwee si hôpitaux yi euh, vraiment soo soo laajtee banque de sang yi dama bëgg a maye sang dañ la orienté yóbbu la foo xam ne foofu ngay maye sang ndax gis nañu ne ñuy faral di maye seen deret ñoom ñooy gën a dëgër loo fop ñoo xam ne duñu ñu maye te soo xoolee si militaires yi dañu ne yow magatu militaire la magatu militaire yooyu ba dañu dëgër dëgëraay boobu nag du leneen ndax militaire yi dañ leen obligé ñu maye sang da ngay gis koo xam day maye ba maye lu mat juróom-ñett fukki yoon gis nga kooku su la nuyoo ba yëngal na di dangay mel ne kii xale la fekk du xale mag la waaye sans bu ñu renouveler di ko renouveler di ko mayewaat taw feex boobu ci nekk moom mooy tax mu am mu am mu dëgër am dëgëraay boobu ñun ñëpp dañoo war a taxaw dimbale jaam yi ndaxte dimbale jaam dafa bari façon waaye nag jël loo xam ne si yow la jógee nga yéene ko ku yéenewul munoo ko def nit nag mun nga ko may xaalis mun nga ko may lépp waaye jël sa deret jox ko mu mu jëfandikoo ko ngir wër-gu-yaram bi ah loolu moom jëf bu kawe la moo tax wax dëgg ñu ngi ñaan ñëpp adduna bi yëpp ñun mel ne sëñ Modou Mbacké Maoul Hayaat ndax lii muy defal jaam yi moom wax dëgg kawe na kawaay boo xam ne ñun ñii sax dañ see dañ cee képp wax ci waaye lii ñu ci sant yàlla même fekkoon benn poche kese kese kese dañ ci jëlee dañ ci sant yàlla ndax poche boobu sauvé na benn nit te nit kooku mën na di ñoom ay doom yoo xam day sauvé te xamul kan ngay sauvé ndax ku jigéen kay muy mucc nga sauvé ko euh, doom boobu yu juddoo mun a doon imaam mun a doon nit yàlla mun a xamoo lu muy doon ni nga sauvé ko loolu tawfeex bu dul jeex la waxtuma la nag ñu am ci ay centaine de poches de sang loolu moom vraiment donc gisuma ko lu gëna kawé waye waaye li ñu mën wax dal moy ñepp nañu essayer maye sang parce que wër-gu-yaram mi ngi ci parce que amna fièvre yu bëree bëri bëri bëri ño xamné naroon nañu tok ba am ay cancer té duñ ko xam te soo mayee deret do fay dara ci ngay profito ñu ñu defal lay analyse yo xamne so doon def xajna ay 25000 30000 ding ko ci def ñu may la gratuitement analyse bobu nga dimbal ci doomu adama lool donc ñaari bénéfice la te amna fièvre yu bëree bëri dañ koy détecter suñu joxé deret suñu mayé deret lañ koy analyser xol vraiment jox la sa résultat su fekkee da nga fièvre ñu ah yow di amna ben fièvre feebaru sang boo xam mi ngi ci biir yaram bi maintenant il faut nga traiter ko won la yoon bo xamné fa ngay jaar pour ñu faj la wax la également fièvre bu dafa am lo xamné nga wara moytu ñu wax la lii lii moytu lii moytu lii moytu aar la xoolal taw feex boobu rek dèjà yaa ngi ñëw pour dimbale nit yara jaar foofu dimbale la xam nga loolu taw feex la li ñu ñaan yàlla nag vraiment ñu may ñu xool boo xam ne ah dañu am xool pour maye parce que am na ñoo xam ne dañu ragal am na ñoo xam ne aussi dañoo xamut parce que ku bëgg a def lu baax suñu la waxee lii euh, maye deret kawe na kawe boo xam ne daal euh, yaakaar naa yow soo comprendre di nga mën ñëw maye mais yi nag xam naa information bi Euh, jàll nu mu war a jàlle ñu bari dañoo ragal ne sang bi dañ koy maye soo ko mayee dañ koy jaay wala boobu soo mayee deret dootoo amati deret ba mukk yooyu yëpp dañ koy gis ñu koy wax te loolu wax dëgg yàlla euh, ah, deme demeewul noonu ñàkk compréhension rek moo ko waral waaye maye deret moom day yokk sa wërgu yaram yow miy maye ba pare te jaayoo ñu deret bi parce que deret kenn mënu ko jaay dañ koy jël poche yi ñuy jënd ay poche vide lay doon gaa yi jënd ci am na hôpitaux yoo xam ne nag dañuy def remplacer

mais nekul ne ñoom dañuy jël poche bo pour jaay ko dañu ne pour am ay ressources bo xam dañ koy bëgg amalé eh, ressources bo boo ñu mëna continuer waaye am na hôpitaux yoo xam ne ñoom ñu amuñu loolu seen xaalis bopp la ñu jël pour euh, jënd poche yi ñun noonu la ñu noonu la ñu doxalee ndaamaatu du ñu fay ko malade dara dara analyse gratuitement la poche bi gratuitement la loolu yëpp vraiment donc coobara sëñ Saliou la woon ñëwee si hôpital bi ñaan loolu ñu ne ko duñ ko def mu mën demee ñun ñooy génne suñu xaalis bopp suñu poche jënd ay poche pour sauver jaam yi ñu ñëwaat fii kër mbay Fall wax dëgg yàlla sëñ ñu jox ñu ndigal boo xam ne ñun dañ cee kontaan parce que chaque jour ñu ngi wër fu ñu mën a jëlee ay poche de sang di woo ay donneurs yi lu mel ni su amee nag nga xam ne dañuy waaj taalu magal ba nga xam ne magal yi ndeysaan day bari ay accidenté am ñoo xam dañu am ay problème mu deret nga denc deret boobu ba magal bi ñëw nga mun koo jox jaam jo sauver jaam yi sauver ñoo xam ne ñoo ñëw si magal sëñ Touba loolu yaakaar naa ne moom jëf ju rëy la jëf ju rëy la moo tax ñu ñaanal sëñ bi yàlla na ko fi bàyyi boo mu liggéeyal sëñ Touba liggéey bu kawe kawe lool ñun ñii ñëpp ma xam ne def nañ su ñu ngi septième édition mais ñu dem ba nekk ay cinquième cent vingtième édition yaakaar naa yàlla bari na yërmande yàlla mën na def loolu. ren nag dañoo ñëwaatoon comme niñ ko tàmmee def juróom-ñaari at si ren fii kii Kër Mbaye Fall. fekk ci ku baax ku tedd sëñ Modou Mbacke Maoul ayat yàlla nañ ko yalla fayal te yàlla ko fi lool mu yàgg fi lool Mbacke te and ko wér mu wo ay talibim comme ni ko daan defale at bu ne bu ñuy waajal magalu Touba ku ne xam na njëriñ li maye deret am ci doomu aadama te nit ñi dafa melni dañ ko umpe ndax yenn saay nga gis doomu aadama bu faat faatu ndax manke deret te du dara asaka yi deretu ki joxe ndax sëñ Saaliw sama sang bi yàlla na ma ko yàlla fayal dafa ne xeetu jaamu yàlla yëpp may deret da cee gën a kawe ndax nee na ki nar a faatu nga jël sa deret jox ko bu sawee lépp lu askan ci moom yaa ko indi kon da ngaa jaar ma yaakaar ne wax jooju rek même bu doon sax dafa safaanoo nit ñi war nañoo gëm wax ji tënk ko ba di def sakantu malak ba mu wóoree ni sa njëriñ la ndax boo mayee dañ la defal ay analyse dañ la seetal toppum siti seetal la feebaru hépatite A bu B ak C dañ la ci seetal feebar bi xew sida nit ñi di ragal te mu am ay garab léegi ba pare wax la sa groupe ban la ndax groupe dafa bëri ndax maanaam ñeenti façon groupe la ñu topsal ci ñaari façon registre donc boo ko xoolee juróom-ñetti groupe sanguin mooy am ci léegi nag bu boobaa loolu boo ko doon fay jóg rek dem bëgg a xool sa wér-gu-yaram di ko fay ji di nga ci fay lu war a tuute koy manqué fukki junni kon ma yaakaar ne nga ñëw maye deret ñu xoolal la loolu nga jaamu si yàlla sunu borom ba pare xamaali ci sa wér-gu-yaram ba ndax buñ ci gisee jàngoro dinañ la teg ci yoon bi nga ko war a faje buñ ci gisul dara nga xam ne gisuñ ci dara yaakaar naa ne fagaru dafa gën faju kon may lancé appel nit ñi fii nag tam nañ fe ñëw wax deug yalla ñi tàmm maye tay maye ci wat nañ comme ni mu daan bëree ndax ñun nak liñu gëna sax moy ñi tàmm maye di maye su ko defé day day wër né liñu ci sanni ci poche ndax boko sété ben fièvre bo ci gis dang koy sanni té bo xolé tay ji ni amé nañ fi 135 poche té na la wër né 100 yi pratiquement ñom ñëpp mas na ëpp man dañuy maye ça veut dire que am nga fi 100 yu valable ndax yeen saa yi nga dem fenn amé fa 50 presque da ngay sanni 20 ya wala 30 ya légui nak eh, at bu jot dañuy ñëw daaw nag ak daaw jéega ëppoon ay nit xëy na ren li mu tombeek màggal geeg yitte yi la ñuy ñaan yàlla su dewee nee ñu amaat fi lu ëpp liñ fi daan amee ci barke Serigne Saliou Mbacke jërë ngeen jëf mbokki jullit mbokki taalibe mbokki seetaankat yi ñu ngi ñaanal Serigne Cheikh Sidil Muxtaar mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul Xayaat mu yàgg fi lool te ànd ak wér di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci bàyyi xel bi nga doon bàyyi xel liggéey groupe Maawul Xayaat communication di leen dig daje ci beneen jataay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu قد وجها هلادي وأقلامي وقد كان لي منام يقود علوم الغيب ربي معلمي